mais xoolal gi ma gis bi yow yow kay ba noo soloo nii ah noo def nii lii la la ni foo jógee ah Ruy Jine fan mooy wax ko gars yu xamul China mbaa dégg nga Chinese ah ah lu fa xewoon ah wa lu fa wa hun la loolu yaa nekk célébrité soo ton celebrity duñ la laajte lu fa xew xanaa da nga am boyfriend boyfriend ha déedéet liggéey liggéey ha and you went there for business Yeah. gay kenn jiisul la ah waaye wa dega ya nakam wa dega naa nag suma broda moom daf dee fir mhm ah ah dega na ko da gaya mo ko payo ni ga de me che na ina ho nan halu ji ge ah holan da la ila na wa holan ba gu wa holan ba so yo ni ga de ni rai na mo mala man na mo mala sa sa fancy na nyu sa sa ba sa timba nge nyu nyu ne ga sigan nyu sigan na nyu ga wa de yin sa me sa ila nyu mo ta ma tal sa ma kamera siswa sa blague lan la waaw duma laalati keneen man dinaa jël kene lu tax maa jël kene gis black bi lu tax sa black mu mu nice and forever xale bu jigéen toogaloo nga ne déedéet eh ko mu xaar ah sa black xam nga ñi di black black bu nice nga ne xaaral rek ma laal def you know Ayah kunjau. jël yow buka bu VIP nak, xoolal yo mo ko suñ kër dégg nga waaw xale mo jigéen bi gis ngeen ni sibra. Te tëju ma dara laa la tëj yéen xoolal naa la ma jigéen yéen yéen xool leen kii xool leen ko waaye yëpp si airport janga xool leen janga baa ngee daw lay leen la laaw celebrity life no easy ah lay leen la laaw xoolal len mo ko waaye ah, ah doomi artist don artist. moo tax it mu ngi